maître Moustapha Dieng maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay Fatia. yow euh, avocat nga ci barreau bu Dakar euh, yaa jiite itam convergence citoyenne bu waaye am nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi. ah man it am naa mbégte lool de nekk seen gan tey fii ci réew mi FM rajo bi nga xam ne wax dëgg yàlla mu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib Sénégal ñëpp di leen déglu di leen ñaanal aussi ngeen yokk ba yëg ko. alors yow euh, convergence bi nga jiite da ngeen di yëngu bu baax ci wàllu sensibilisation bi euh, ñeel mbas mi euh, ca Géejawaay surtout tey ñu gis ne mbas mi mi ngi wéy di am doole nit yi faatu itam di gën a yokku ci noonu nag nit ñi xaw a bàyyeeku du xaw a bàyyeeku sax daanaka. dañoo bàyyeeku bu baax a baax loolu itam am euh, njàkkare boo xam ne jur na ko euh, si ñi nga xam ne ñoo yëngu si xeex bi yéen convergence citoyenne de Guédiawaye yow njiit li lan nga jàpp ni tey moom la ñu war a def ngir soppi ni yëf yi demee. man daal li ma jàpp mooy ñu gën a waxtaan ak population yi léeg-léeg dama liñ koy naxarlu bu baax dinaa bind ci samay page di waxtaan mais saa su ne bu ma génnee di doxantu yenn barab yi géejawaay maanaam ci boolu plage yi wala marché yi wala dara damay gis ne dafa mel ni daal nit ne mbas mu ngi ci réew mi or feebaru bi mu ngi ci biir di law ci biir dañ cee war a ànd bay ci suñu waar looloo tax moom mobilisé woon convergence citoyenne de géejawaay depuis ñeenti weer ñu ngi ci terrain ñu ngi dem ci population ñu ngi dem ci plage yi ñu ngi dem ci marché yi jënd nañu ay masques ñu ngi joxee di waxtaan ak nit ñi mais il faut que nit ñi gëm ne état bi lu mu liggéey liggéey liggéey parce que état bi mu ngi def kent laay kàttanam suñ ci boolewul ñun suñu boole jeunes yi surtout ñu yëg ne lii buñ ci jëlul ay matukaay mën nañu indi leneen loraange combat bi du jeex. noo hmm. tax ñu ngi descendre sur wax dëgg yàlla tey jii may wax yow ni am na ay xale yoo xam ne waa convergence ñu ngi dem yore nañu ay masques ñu ngi koy joxe géejawaay loolu la ñu mën nag ak continuer gi ñaan yàlla mbas mi jóg parce que mbas mi mu ngi rey chaque jour nga gis cas yi gën a yokk chaque jour nga gis cas communautaire yi suuf ñi nga xam dañuy am mbas bi te xamuñ fu ñu koy jëlee di gën a yokk loolu li ko waral yëpp nag sunu ñun sunu ñàkk pasteef la ñàkk farlu bi nga xam ne am nañ ko rawatina ci ndaw ñi nañ may baal mais ndaw ñi moom wax dëgg yàlla da ngeen di xool guddi ak bëccëg dafa mel ni ñoom yëgatuñ ne mbas mi am na te loolu mën na andi ay loraange. Mhm. ci biir askan wi te loolu aussi baaxul ci surtout ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk biir banlieue. Mhm. alors noo gisee de manière générale ni nga xam ne noonu la état euh, taxawee di janoo ak euh, doomu jàngoro ji di coronavirus euh, indi mbas ci àdduna bi. man de faruma fenn mais maa ngi xamal ne la li ma gis ne dëgg-dëgg. état mu ngi koy jël en charge ci taxaw ci Sénégal damaa jël samay këyit ak samay nat nat nattuwaay di ko xool par rapport ak yeneen dëkk yu bëri gouvernement wu Sénégal jiite mi nga xam ne ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi ñëw taxaw yore ci bopp ci bokk bànqaas boobu liggéey nañu liggéey bu ci ay génne nañu ay masque hôpitaux yi médecins yi ñu ngi fay taxaw guddi ak bëccëg di taxaw nit ñi état bi jël na ay moyens ndimbal yépp def nañ ko pour man l' état du Sénégal parce que boo xoolee même ba Amérique yeneen dëkk yoo gis dañuy am sax ñu am problème pour gérer mais man suñu dëkk bi ñi xam ne amuñu ay doole taxawaay biñ ci taxaw man maa ngi koy rafetlu bu baax baax même si dama leen di ñaan ñu gën a yokk seen lox mm. ndax moom xeex corona moom du doy jàngoor joo xam ne moom day law di rey di reye loo ci def rek pour mu jóge fii Euh, euh, euh, du doy donc damay ñaan ñoom ñu yokk mbir mi mais la bal bi nga xam ne nag moom la ñu war a yor mooy balu bal bu mag bi nga xam ne moom la ñu joué contre corona ñu ko yor dëgg mooy ñun population yi hmm. ñun jeunes yi ñoom ñoo ci war a taxaw parce que jeunes yi ñoo man a aar mag ñi plage yi ngay dem fekk fi yëpp ñëw taxaw fa teg seen i attaay kenn du yore masque ñii di doxoon nga dem ci marché yi wala nga romb ci mbedd yi kenn bu sol mag ci jeunes yi jeunes yooyu ngoon yi dañuy boo demee ci kër yi di nga fa sa maam di nga fa fekk say wéyjur mais boo jëlul ay matukaay forêt mbas mi leen boo ko indilee ci biir kër yi lor nga leen. Mm-hmm. lor nga sa bopp itam ndaxte kat wax dëgg yàlla bala nga ne naam ne fa te nit ku nekk ak say wéy ju nag da nga war def tout pour nga jàppaleen nga aar leen day ci wàll woowu tey jii moom la convergence citoyenne sax tey di defee ay discours mm. ci marché yi nekk Guédiawaye di ko def également ci plage yi mm. pour nit ñi ànd ak ñun ba nga xam ne ci xeex corona bi kon loolu daal la amul lu ma ciy wax mm-hmm. alors mbas mi bàyyiwul benn secteur daanaka yépp la lompañal yéen avocat yi naka ngeen ko yëgee ci seen yëngu-yëngu yée avocat yi moom ñu ngi ci raw moom fi mu nekk mm. nii moom dëgg yàlla boo bëggee dégg dëgg rek avocat yi corona bi dafu impacté carrément parce que depuis le mois de mars daanaka liggéey amul tribunal hmm. daanaka toog nañ ñetti weer yoo xam ne ñi benn liggéey am te ku ne avocat da ngay war a recevoir ay clients hmm. am nañ ay mesures yu ñu jël yoo xam ne duñu nangu clients yi di ñëw ci bureau yi mais même tribunal tamit dañ fa jëloon ay matukaay arrêté audience yëpp ba nga xam ne daanaka ci ñu doon yëngu nga xam ne moo doon indi ay koom-koom ci avocat yi ñu dem exécuter ay décision de justice yi lépp dañ ko arrêté ba xam ba tax na wax dëgg yàlla avocat yi moom nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax ren moom soo li ñu mën a wax daal mooy daanaka année judiciaire amul au Sénégal. Mm. kon seeni poche itam yëg na ko bu baax. waaw mais nag ñu ngi doolee sant yàlla rek yëg na ko nag mais boo xoolee par exemple ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir àll bi ñu nekk banlieue surtout ñoo xam ne dañu doon toog di xëy suba di foraatu ñooñu ñëpp da ngay xoole nga ne bon nañ sant yàlla rek yàlla na daal li ñuy ñaan yàlla mooy mu mu ñaan ñu ñaan suñu borom tàllal suñuy loxo suñu borom fexe ba mbas mi génn Sénégal génn Afrique génn ci àdduna yëpp. ba ñëpp dellu seen sago mais avocat yi moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën a mbas mi te avocat kenn dimbaliwu leen loolu moom mën naa ko wax. Hmm. alors ñu des tribunal ndax euh, CJUST euh, di syndicat bi nga xam ne moo jaboote yi liggéey ci wàllu yoon ñu ngi ci grève boobaak léegi tamit euh, yàgg na loolu aussi tax liggéey bi daanaka tagatémbe foofu noo jàngatee grève boobu ak xëy na të gi mu të ngir ñu am ci saafara waaw loolu nag moom mbir la moo xam ne mbir mu tiis la wax dëgg yàlla mais nag il faut xam nga ne SYTJUST aussi syndicat la mm-hmm. syndicat li koy tëral lépp loi moo ko moo ko fi teg ñoom am nañu sañ-sañu maanaam def ay grève maanaam ay ñaxtu seen grève boobu nag yàgg na parce que daanaka léegi mu def ñaari weer mu dolli ci ñetti weer yi wala ñeenti weer yi nga xam ne avocat yi toog nañ ko liggéey donc mu doon loo xam ne day gën a yokk sax ay problème au niveau de mais man li ma jàpp moom mooy Euh, ñoom ñëpp même famille bi la parce que avocat woo greffier woo magistrat ñun ñëpp ñoo bokk famille judiciaire nañu waxtaan rek. Hmm. waxtaan daal ba juboo gis naa ni nag si gis euh, bañu ñoo waxtaan gis naa yi tamit ne pouvoir public bi aussi ñoom tëjuñu seen i buntu ne ñu waxtaan donc bu ñu leen encouragé jàppale leen yaakaar naa ni solution dina mën a am. Hmm. te bu solution amee Sénégal yëpp dinañ ko yëg. parce que tey jii gis na ñoo xam ne ñu ngi war a def examen mënuñoo déposer ay dossier ndax amuñu ay nationalité ñi amuñu casier judiciaire avocat yi bëgg nañu liggéey liggéey amul am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso yi ñu war leen a àtte kenn àttewu leen loolu yëpp boo ko tënkee dafay doon problème boo xam ne ñu ñun ñëpp ñëpp ñëpp la interpellé hmm. te suñu njaboot lañ ci diis ña fa nekk suñuy xarit lañu alors ñun li ñuy ñaan rek moom mooy ñëpp booloo ñu toog autour d'une table ñu négocier ba jubóo en tout cas ordre des avocats man li ma ci mën a wax daal yëg ko ci mooy xam naa ni suñu bâtonnier moom nitu jàmm la mooy maître Pape Leyti Ndiaye mu ngi ciy ay jéego ñu ñaan yàlla rek loolu antu mën a génn ci situation bii nga xam ne situation bu difficile la wax dëgg yàlla. mais bu ñu gisee ni ministre de la justice Sambale doxalee mi ngi formé lu ay euh, greffier ad yoo xam ne ñoom la bëgg ñu remplacer euh, greffier yi bokk ci SYTJUST grève est-ce que loolu tamit euh, dina jur jàmm ndax SYTJUST ñu ngi koy naqarlu waaw waaw waaw man xam nga nag dama am obligation de réserve am na yoo xam ne sax yëguma ko yaa ma ko wax nii ne ñu ngi def ay formation ay greffier yooyu ay greffier ad hoc ñu jël audience yi man yëgaguma ko. Hmm. mais daal li ma la mën a wax moom mooy ci li ci mën a wax mooy. tey jii su ma amul du am benn greffier bu nekk ci ay fitna ak ay ay ay ay tolof tolof. mais justice bi tamit du am benn rëq-rëq dinañ dem ñu def def suñu liggéey na mu waree comme nañ ko daan defee. donc nañu waxtaan waxtaan bi mooy régler problème bi. parce que le droit de grève est droit constitutionnel xam nga lool c'est inscrit dans la constitution ñoom ñu ngi def seeni i grève nañu waxtaan nag parce que boo demee nga ne lii mooy samay ñaxtu da ngay nanga waxtaan nag ñu ngi ko seexal comme ñoom ñaan yi ubbi nañ seen i buntu man jàpp naa ni mbir mi dina sorti ak jàmm ci kàttanu yàlla mm. loolu daal laa leen mën a ñaanal ñoom ñaari par mm. ñëpp ba ñu mën a delluwaat sumu sago mën a liggéey défendre la cause bi nga xam dañ leen a téye mais également dans l'intérêt bien compris de l'ensemble des citoyens sénégalais ndaxte ñëpp suñu toll nii li ñuy xaar rek moom mooy tribunal yi tijjuwaat ba ñu mën a delluwaat seen i am seen i këyit bu ñu fa soxla ñu mën koo lijjanti jàmm ak salaam. Mm. ak sutura. mais bu ñu sukkandikoo ci seen ndaje mu njëkk mi nga xam ne jurul dara est-ce que yaakaar mun na am xëy na ci yeneen ndaje yi ñuy sàkk ngir ñu. amal ah, mm. ah waaw waaw. gis nañ fi ay grève yoo xam ne def nañ ay ndaje lu ëpp fukki yoon dañuy waxtaan rek. Mm. waxtaan ba jubóo saa ñuy waxtaanee rek mën na am ñiy bàcc ci pàcc bi ñi bàyyi ci lii. ñu dem ba retrouvé wu ci benn terrain boo xam ne foofu incha allah dinañu mën a d'accord ba ñu delluwaat ci sago hmm. benn ndajaay mën nañ ko def mu am problème mais rien ne dit bu ñu waxtaanee ba waxtaanaat waxtaanaat ñi nga xam ne ñoo nekk ci wet gi jàppale leen damaa jàpp loolu bu ñu ko defee ñu mën a am solution te loolu moo gën ci Sénégal moo gën ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo mhm. ñu wax euh, léegi ci convergence citoyenne de Guédiawaye kuréel la goo xam ne euh, yaa ko jiite ndax euh, da ngeen di politique ndax da ngeen am yéene def ko parti ak itam yow sa bët ci politique fan nga ko teg ñu ngi jëm ci ay élections locale convergence poli citoyenne de Guédiawaye bokku ci benn partie hmm. kuréel la nag boo xam ne ku nekk banlieue wala nga nekk Guédiawaye munoo umpale ne convergence citoyenne de Guédiawaye mu fay taxaw parce que ay jeunes lañu. ay mag lañu ay ndaw lañu ay jigéen lañu yu am doole yu am pas-pas nag ci défendre seeni i cause ñaata nit ñoo ci nekk tey euh, ci toll nii ci ñem am carte de membre yi jege nañu carte ñeenti junni ak juróomi téeméer ak lu ko teg waxuma nag sympathisant ñi nga xam ne ay dëkkandoo lañ ñi mm-hmm. ay mag lañu mënuñoo bindu mais daal mouvement la boo xam ne moom ña nekk Guédiawaye boo leen laajee dañ leen ne leen convergence citoyenne nu Maître Dieng bu nekk Guédiawaye mm. am na fa doole bu baax a baax a baax a baax ko tax a liggéey ngir njariñu askan wi dong moo ko tax a képp moo xam ne ni njariñu askan wi yitteel na la boo ñëwee ci convergence citoyenne dinañu ànd ak yow ñu liggéey hmm. dans l' intérêt supérieur de la banlieue en général ak géejawaay nag en partie bi nga xam ne fa la ñu juddoo fa la ñu yaroo hmm. lan moo jagul géejawaay tey lan lu ngeen bëgg a joyanti xëy na bon man jàpp naa ni géejawaayu tey bokkul ak géejawaayu démb hmm. parce que géejawaayu démb amoon nañ problème yu bari mais tey jii gis nañ ne am nañ ay effort yoo xam ne collectivités locale yi ak état bi def nañ ko am nañu ay infrastructure am nañu ay infrastructure jeune dernière génération voirie bi ñu ngi koy defaraat am na ci yenn anam yoo xam ne aussi wax dëgg yàlla am na ay avancé mais loolu dafa doyul je pense que li population yi di ñaxtu également dañ ko war a tenir en considération war nañu def ay jéego yu baax yu rëy rëy ci wàllu wér-gi-yaram bi ci wàllu cet ji maanaam hygiène cadre de vie bi hygiène bi war nañu def également ay effort ci cas bu ñu waxee hygiène ak cadre de mooy assainissement bi nga xam ne loolu waa Guédiawaye aussi tàmbali woon nañ ko dañ ko war a gën a yokk am nañ ay ñu war a def aussi ci éducation ak formation xale yi suñu amee éducation ak formation ëllëg si biir ñoom ñooy def li ñu waxoon ne dañoo bëgg ñu def Guédiawaye comme Paris ñoom ñooy jël Guédiawaye def ko comme Los Angeles donc nañu Paris wu éducation formation santé ak cadre de vie loolu ay préoccupation majeure la yoo xam ne Guédiawaye am na ko et loolu wax dëgg yàlla je pense que collectivités locales yi des na seen liggéey foofu xaw nañ fa gën a peser même si mën naa reconnaître ne ñu ngi def ay efforts pour améliorer la condition de vie à Guédiawaye et en banlieue. alors est-ce que mun nañu dégg ci loolu ne que da nga bëgg nekk maire Guédiawaye. ah loolu nag moom wax ko fi mu toll nii moom dina ma jafe ndaxte déjà rek kenn xamoo ko kañ ñuy def élection locale benn ñaareel ba aussi man dama nekk koo xam ne du def lenn te ànduma ci ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal convergence citoyenne benn structure la boo li ñuy wax dañ koy waxtaane li fa baax ci géejawee ñu ngi koy wax li nga xam ne moom la ñuy naqarlu ci géejawee ñu ngi koy wax ñëpp a ñuy dégg bu ñu demee nag ba ñu fixé date élection yi ba mu jot lépp lu nga xam ne war nañ koo taxaw ci wàll woowu buñ ko ko respecté ñu ànd ci yow kuñ ko respecté woon dinañ jóg suñu tànk tànku bopp dem doxal ko suñu bopp nag daggan baatu askan bi bu fekkee ne loolu nag moom mooy politique ok d'accord mën nañu wax ne politique la mais daal lu jëmale askan wi kanam moom dinañ ko taxaw te élection locale yi bëgg nañ ci ak képp koo xam ne leader politique nga nekk ci localité bi boo xam ne bëgg nga ànd ak ñun ci combat bi moo xam yaa koy jiite moo xam dañ lay jiite mais combat boobu ko mën incha allah te du fas yéene wuñ cee dellu xam nga man yàlla dafa def nekk naa sax euh, euh, conseiller municipal daanaka année bi nga xam ne moom laay solo avocat prêté gu ma woon serment avocat nekk conseiller municipal. nekk naa premier adjoint au maire bi lu Guédiawaye dama koy wax ñun lañ koy tooñ di wax man je fais ñi nga xam ne. daanaka ñu ñëw fi njëkk a juddoo ak géejawaay donc dëkk bi dama ko bëggal suma bopp yàlla xam na ko damaa bëgg ñu fa nekk damaa xool fañ suma waajur yi jëlee géejawaay indi ko fii tey ñun ñi fa nekk yëpp ñu xar suñu tànk tubay taxaw ci donc loolu ku ci taxaw loolu c'est de la politique politique moom mooy nga am njariñ ci askan bi nga xam ne fa nga dëkk loolu moom moom mën a nekk sama taxawaay te mooy kon na nekk sama taxawaay tant que yàlla may mais yow homme politique nga donc ñàkkul am nga say ambition personnel yoo xam ne peut-être mooy nekk maire mën a defar géejawaay wala au la même nga nekk leneen donc euh, ambition yooyu noonu laa bëgg nga wax ñu ko. am naa ambition wu ànd ak ku ko bëgg ñu ànd defar géejawaay loolu moom mooy li nga xam ne mën naa cee tontu suma volonté daal mooy vraiment géejawaay fépp nga xam ne mën nañ ko tirer fa mu nekk gën cee yokk parce que ville moom bu ñuy defar surtout géejawaay saa su ne rek war nañ ci am luñ ci yokk ñu fi nekk nag defuñu dara. le maire def na ay liggéey yu am solo mais nag am na loo xam ne aussi des na te yaakaar naa ne ñoom ñëpp xam nañ ko ambition boobu nag ma am nag su fekkee ne loolu ngay woowee nag politique bëgg nekk maire wala bëgg nekk dara affaire yéen ñeenay interprété seen interprété mais daal li ma wóote woon mooy bis ñu demee bay waxtu waxu maire yi en banlieue la convergence citoyenne de Guédiawaye dina am baatam moom dina jëpp ñu dégg incha allah rabbi. waa xëy na su boobaa di nga si wax lu gën a leer. dinaa leen jox li gën leer. <laughs> maître Moustapha Dieng ñu ngi lay gërëm euh, amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu mi FM tey fàttali ni yow avocat nga ci barreau bu Dakar nekk itam président convergence citoyenne bu Guédiawaye ñu ngi lay gërëm di la sant. jërë ngeen salaam.